Carbuzz ñuy nañ leen siyaar nañ leen demaat mbégte jàkkaarloo waat ak yéen saa su ne ma koy wax rek ñun ak yéen la du jeex seen émission samp ndënd tey nag ñu seet si un grand champion liiru Diane di suma xarit di suma doomu ndey di mu monument ci géejawaay am ndam lu rëy bii passé rek te yàggul dara ca Gambie liiru maa ngi lay nuyu. Ah, asalaamaaleykum jërëjëf sëñ Touba jaram mam Cheikh Ibrahima mu Lamp Baabul Muridina mhm. Fadel maa ngi lay ziar sama doomu ndey sama xarit. Mhm. yow de doo mës a soppeeku. te doo mës a nekk saytaane. ndax yow Fadel sa lépp ci yoon nga koy teg. nga def déplacement fekk ba fii tey Géejawaay sama baat dee na sax dama doon bëgg a génn dama doon bëgg voyage nii waaye yow. mënuma laa bañal dara. Uh-huh. nga fekk ma sama atelier xarit sama doomu ndey muy Modou Mbacke baax yaay Couture. Uh-huh. defal ma tranga liiru teel ngaa dóor de xanaa ko ma de ku la defal lu baax nga wax ko yow ndax da ngaa gore. kon nag man ku ma defal lu baax moo ko. Fadel victoire jar naa liggéey ba dee. waa loolu Fadel victoire dafa neex. waaw loolu xoolal ma Mbàkke lii ma defal xoolal ma lii ma defal lii dafa neex Fadel. lii lan moo koy fay. dara wax ma ko victoire a koy fay. dara du ko fay jar na liggéey ba dee. dara du liggéey ba dee nan waxante dëgg. non jar na lépp léegi. Modou Mbàkke amul ma ko fayee ci kaw ci kanam. Mm, dinañ ci ñëw lii du nga ci combat boo xam ne dafa bëri won coow. Fadel dañ maa fekk sama gox. Mm-hmm. waaw d'accord kër soo fay dugg dangay ngay fëgg mm-hmm. dëggam déet. dëgg la maa ngi nuyu monsieur le maire Aliou Sall Sall ngaari bu di gëdalam toora maire Guédiawaye. sëñ Madou Seye borom taw féex. di nga gërëm te xaalis non non damay nuyoo. di nuyu sama doomu nday Dieye Sène. ah waaw maa lay déglu di nuyu Moussa Fall Moussa Kees Fouta bay di Ba bay di Sey ah di nuyu waa Guédiawaye gépp at laat ba ca Qatar maa ngi nuyu ñëpp. d' accord kenn ndax su ma sama koñ d' accord su nuyu waa géej way bàyyiwuma kenn ndax kilifa laa fi uh-huh. nuyu grand champion Balla Gaye 2 borom victoire bi ah, ak ñoom la dëggee ah, moom moom moom victoire ah, bi moo ko moom kay waaw léegi foofu ak Adja Gass borom Angleterre ay tertu ba ñu tertu Gambie ak lam ñu defal Gambie te ma nga ca Angleterre di yónnee rakke yi ñuy def dara manqué wuñu Gambie mais lii dafa mel ni combat bi da nga cee mos lu bari de parce que Serigne Saliou Mbacké sant yàlla ndax combat bi dafa yàggoon depuis daaw la woon nan waxante depuis daaw la woon. léegi ñu waroon a bëri Sénégal. après euh, promoteur bi renvoyé ko. ne dañuy bëri Gambie man yaakaaruñu woon sax ñu dañuy bëri Gambie. yàlla pour man Sénégal la ñuy bëre. ñu dem ba ci yàgg ñu ne Gambie la ñuy bëre. nii la demee te combat boo xam daaw la woon ngaan nañ cee mos lu bari. xanaa samay nit de laa yaakaar te fi mu ne te ñëwagunu. ah yow ñi ngay tudd nuyu ba ma nit ah ñoom da bëgg du ñëw. dañoo war a ñëw danañ ñëw ñu ñëw ci biir combat bi liiru monsieur le maire dina ñëw jëpp danañ dina ñëw liiru danañ dikk mais fuuta dina ñëw ñëpp danañ dikk waxuma ne ah, fuuta mais gànnaar sax danañ dikk léegi buñ dikkee ci biir combat ah, eh, nee na taal ministre de la jeunesse Guédiawaye gii la dëkk jërëjëf ministre de la jeunesse waaw liiru jaan mm-hmm. léegi ginnaaw loolu lépp ñu dugg ci biir aspect combat bi waaw combat bi bëri woon coow sa digganteeg euh, wulli fu ne ngeen taxaw fa wax mm-hmm. liiru ne da lay dóor nga daanu wulli ne da lay dóor nga daanu yaa ne da nga koy dóor mu daanu mm-hmm. biñ demee ba ci biir combat bi liiru man ci combat bi nag sincèrement am na ci biir combat bi yoo xam ne man xaw naa am gàcce nag. muy mooy instant yi la sa adversaire di gëdd ngay daw di génn. bëri mag laa bëri moom Fadel te booy bi li làqu woon ci moom ci ginnaawam moo bëri. foofu loolu dinañ ci ñëw ñëw ci bëre bi waaw. yow kan moo lu tax ñu lay gëdd ngay daw. kan moo moom. <laughs> waaw bëri mag laa bëri moom day moom dafay mer. da nga koy jox sa anjeer bakoo mu ñëw tey ji fekkoon leer na su ma ko dóoree du génn saako su ma génnee saako yi moom du génn saako du ma génn saako yi waaye xam ne man su ma ko su ma génnee saako dina ma topp te su ma toppee dina def su ma defee fët génn saako yi moom dee day def fët génn saako yi mais man xam nga lu ma jaaxal yow yow yow la ni dàqi ya te yow yaa yaa bu ardo maa koy yóbbu ardo bëri mooy bëri ak góos bi laa ko doon may di anière di anière mais est ce que yow yow yow pare woon sa doon li li ci doon est ce que naa daan kee ndax da nga woo taxaw loolu ma jaaxal li ngeen kii Serigne Saliou Mbacke ku lu moom loolu liiru combat bi combat bi nag yow man xaw ma yow no yàllaa la suturaal pan li ma jàpp nga am mais waaw indi woo loo xam ne war nangu naa ndax taxawoo benn waaw bi ci des xeex bi xam naa da ngay dóor tombé kanam gi ñëw nga dóor ko mu naaj dama koy xool Fadel dama koy xool yow Fadel nag xàmmeetuma la mais non non maa ngi xam nga liiru rek non la ndax soo ne ma indi woolu daan wuli daf may jaaxal non indi nga mais parce que dañoo gis taxawoo li tax bëri bi moo laaj loolu combat bi moo laay lool hmm. est-ce que may na ma fu ma xalaatee. déedéet waaw bi def suul mu tàkk sama kaw. Hmm. may andee di ko jam. Hmm. tey jii leer na ma su ma fekkoon man damaa génn saako yi moom mu taxaw ci saako yi gëdd ma ma aneer ma génn saako yi ma jeggi saako su ma xam may am autisme moom du am autisme. waaye dama xam ne man su ma ko touché su ma génnee daf may topp. te su ma toppee du bàyyi ndax touché naa ko su ma toppee du su ma toppee du bàyyi fekkoon tey fii la. man su ma taxawee su ma su ma gëddee ma génn saako yi moom mu taxaw ci saako yi su boobaa xam may am avertissement moom du am avertissement waaye soo gisee ma gëddoo su ma dóoree ma daw ma arrière moom moo may topp te su ma toppee day génn ba saako yi bu ma jéggi saako mu kon ne dóor arbitre soufflé ma loolu ma ñam ko mu neex du ma ko bàyyi ñu gis bi ngeen génnee saako yi hmm. mu dóor la foofu nga tëdd nga jóg nga tëdd mais yow foofu man li ma jàpp mooy yow nangu woon naroo woon a jógaat barki sëriñ Fallou Mbacke billaahi wallaahi dama dama xam ne li muy def du yoon su doon Dakar la du ko def mais liiru arbitre ñëw wax na yow yow ñaata yoon nga tëdd da ngoo soo jógee ba wax nañ pour nga dóor a jóg waaw non man maa ko de non man dañ maa tëddloo rek man dañ ma toogal bu jóg ku la tëddloo non euh, dama ànd ak euh, sama rakk yi sama xarit ndax booy ku ci mel ay Alioune Seye 2 mais est-ce que da ngaa tëdd ngir ngir bëgg combat bi jeexee foofu pour nga mën a ne yàlla jërëjëf mënut foofu combat ndax moom def naa ay heure moom mi dem ba ci arbitre bi ne ko ne tasal lamb bi sama loxo day metti mu ne ko soo tasee lamb bi koy jox victoire mu ne ko liiru mu ne kon suuf leen ñu bëri non loolu te gaañu na si loxo ko gaañ yow yow non ni muy dóoree heure lay dóoree ne fi muy dóor du xool fu muy dóor day màmm rek moom ñëw man damay xool di ko jam non c'est que man liiru xam nga man avant combat bi ñuy waxtaan ak yëpp man xam nga li ma jàppoon waaw mooy bu liiru ñëwee waaw ah. day ñëw mbapat ak booy bi jàpp ko man ko ni man loolu laa bëggoon waaye may wax ma parce que booy bi booy bi dafa gëmloo ñëpp ni wulli mag la liiru mag la màggatum jaan la nekkul jaan ju ndaw te jaan ju ndaw jaan ju mag bi moom da ngay màggat jël sànni fële waaw léegi nag ma ne kon loolu wax jooju na tuuse liiru ba bu ñëwee waaw li muy jël mooy tey wan booy bi ne man du ma màggatum jaan mhm. mais bi nga ñëwee ñu ni far rek booy bi mam nga gis nga nga mel di frein super frein dagg non bul wax loolu Fadel soo waxee loolu dafay mel ni yow xam nga suñu waxtaan la bu ci indi xàmmeetuma la dafay mel ni xàmmeetuma la bu mel ni xàmmeetuma la yow sama xarit nga non waaw waaye soo waxee dafay mel ni xàmmeetuma la soo waxee dafa mel ni frein yi da ma bëri mag laa bëri booy bi arrière arrière bu bett maa arrière maa arrière système la bàyyi man dinaa ko may revanche avant revanche bi. ci biir dinaa ci biir ci ñu ñëw loolu ci biir combat bi. waaw ñu gis nga ni Papis waa Kër Modou la ñëwoon di ko jàppale. ñoom ñoo ko ngemb ñoo ko indi. da ngaa gis ñu sotti ko butéel. Lamine bu Lutte TV. waaw euh, na Papis jox na benn bidon ne ko pour mu sotti ko wulli. Lamine moo wax loolu. Lamine bu Lutte TV moo ko moom ko wax foofu Modou Lo jox na ma ba pare ñu koy ko ñu taxaw gisoo bi ma joxe victoire bi am na ñu ko doon seetal ne ko Modou Lo dafa mer rek fippeeku daw waaye Papa Sow booy bu baaxee noonu booy bu gën a fëlal taxaw ndeysaan Papa Sow Fass daal neutre. Hmm. maandu. xam nga yow mbëru askan gi. voilà ñu la bëgg dama bëri. voilà wa Modou Lo mu def moo dul yoon. am na ci war far am na ci droit nag Balla Gaye ngi ci yow. Balla Gaye sama rakk la. Modou Lo bu ko dee xamee ne sama rakk la bokk ñu dara lan bokkul wulee nga bokk ok ko dee ne booyam la. du si dara. da nga gis ko yow loo ko jàngatee da nga jàpp ne lan la. y' a quelque chose. lan chose boobu lan la da nga jàpp ne entre diggante Balla Gaye ak Modou loolu loolu lay def. Eh, man góoma loolu. non si lu ci yoonam ci combat mu neutre. combat bi li ci laxas woon moo booy promoteur sax saytaanal di xamoo ki tëgg làmb sax saytaanal wul bëggoon mu daan ma saytaana la. waaye nee naa ko soo bëggoon seen biir kër ma bëre biir kër ñoom wulli ma bëre. jamay kee. saytaane la bu mag. ndax lim nekk booy Modou Lo. la. daf ma doon gasal pax daa bëggoon wulli daan ma. liiru mbaa doon dem ba ci biir gën a ma faral saytaane nga. ah ñëpp nee. Ah? non ni ngay koppar soo nii soo ko continuer ma ñëw ci yow waaye nag nekk goo ko waaye léegi maa ngi ma dégg nga may wax ngay mel ni at bu suuf la ngay mel ni buy. non dama gis nga taxawoo rek xam nga sa adversaire gëdd la nga reculer reculer bu gaaw. booy bi bëri mag laan bëri moom Gàmbi man moom day ñëw ñi day mer su ma amee soo ko touché soo génnee da lay topp day def erreur. kon daa yooyu da nga jàpp ne la tàndoroon piège yóbbu la Gàmbi. voilà pour jéem la. toroxal foofu fii la booy bi waxoon ak man combat fii la woon man fii leen ko waxoon waaw mu jékki-jékki na mu yóbbu ma Gambie pourquoi nga nangoo dem Gambie kon garaawul bii ñëw rek bii na ñëw rek damay liggéey time is morning Fadel man damay business. mais man naam Modou Lo dafa dafa ñeewantu mën naam dafa ñeewantu tam. kee rek xam ne. ñeewantu parce que tam li wulli mm. ko liiru yow combat bi ñu la jàppale jëpp dafa bari. wulli de moom ëpp jàppale téeméer ñu la jàppale dafa bari de. wulli de moom ëpp jàppale téeméer daa bari. waxal li ma ñu wax jàppale. Balla Gaye Balla Gaye le grand champion. maa ngi koy nuyuwaale sama rakk la maa koy nuyuwaale sama rakk la kooku sama rakk la. sama rakk la bu leen koy xool ci Balla Gaye da di sonn. mais Modou Lo bu ko neexee tam mu ne kee sama rakk la. bokkuñu Modou Lo ma nga dëkk Taïba Ndiaye. waaw Wouly nga dëkk Réfat wala Wouly léegi dafa bëgg a dem rek énergie. ah loolu moom ah? loolu ma. sama rakk la la dëggee dee sama rakk la guy gi sama la Sakké sama rakk la. ba pare ba xam naa dalay ruube rek naan la ay Modou Lo moo jox moo jox papis bidon. pour mu sotti ko na ma da koo jox bidon. nee na ma Modou jox na benn bi euh, jox na benn bidon papis pour mu sotti ko moo kii wulli ci biir combat bi waaw avant ñuy bëree moom man maa koy jaay ndeysaan moom nag mu ñeewantal ma ci loolu xam naa Lamine saytaane la sax waaye bu may jéem a ñeewantal waa la ci loolu. Euh, ndax sotti ma doon sol non Lamine moom bu fekkee moo la wax loolu nekkut saytaane kon. non waa non lim gis rek la wax. xëy na ah, ah. xëy na lim gis rek la wax ah. kon kon tànn kun naral tànn pièce mu dimbali la wax la loolu. kon waaye man xooluma loolu. man man boobu dafa mel ne affaire maa gën a nekk dama a nekk xanaa. mais ne combat bi nag si susu loolu. waaw si la bokk tamit. parce que yow àdduna bi ñoo lay bégee. waaw xaritu ñëpp la. yow yow li ma naan yow baroon noonu bari woo noonu. man xalaat naa sa adversaire bariwul noonu. damay wax te yàlla tax. dëgg la nit ku baax la ku mën a far la amul problème. xam nga mais xanaa kay li ñu doon xaar ci combat bi mooy ngeen daw jàppante bëree. waaw jargandalu combat bi ban combat moo ko dàq ci année bi. non neex na. ban combat moo ko dàq ci année dañoo ar waaw. ban combat moo ko dàq. mais sa adversaire yóbbu bi bi bi ñuy bëri fii mooy dàq. yóbbu nga sa adversaire Ardo mais tam mais tam mais na la de. waaw ci biti la ma touché boobu damay wàcc sama gaar arbitre soufflé ma seetaan ko pour bëgg a am ndam ndax su boobaa arbitre yi dañuy dañuy contacté mi may dóor ma taxaw di ko seetaan mi ngi may dóor ma taxaw di ko seetaan dóor bu mujj ba nag troisième ba boobu moom wax dëgg yàlla moom na mu dalee dafa ëpp ba ba ba xoolal gisoo <laughs> ba pare daal di toog ndax boobu. yow dangaa tëdd kay. maa ko bu ma dóor la dafa dal boobu. dafa dal boobu maa ngi ci biti. bi ma dóoree boobu gisoo na ma wàcc sama gar. ndeysaan ngay dóor ci mais est-ce que est wulli euh, ëpp la doole ci combat bi. tam non maa ëpp doole. barke Serigne Fallou Mbacke mënu maa ëpp doole. combat am naa doole mënu maa ëpp. non am nga doole liggéey nga mais est li mu la féete ndaw feeñu ci tam. parce que moom dafay indi ne mm.

doyul ci combat bi ñi moo bari gaa ngi woote di wax. ñi combat bi ñu ko bëgg ci loolu. ñi moo bari. pare nga. waaye lan mooy pare nga boo pare day. sa digganteeg wuli mba sa digganteeg dem ba mujjee mel ni Balla Gaye Modou Lo parce que léegi dem na ba ñaari staff yi ku ne léegi am sa xëcc sa mbër. waaw waaye moom wuli wuli. parce que yow kalaase nga wuli léegi parcelle nee nga jox nee nga jox leen ko butéel pour mu sangoo waaw waaw waa parcelle yi ñoo ko doon jàppale moo tax yow it Balla Gaye la jàppale Balla Gaye sama rakk la waaye waaw waaw dina la mais dama ne est-ce du dem ba ñaari ñaari ñaari parcelle ak géejawaay ku ne am combat boo xam mu ne combat boo nekk parcelle ak géejawaay ba tey mën naa ne lu ne xañ na ci lu ne xañ na ci ma ne combat bi li ci laxasu woon moo bari nit ma doon sotee moo bari ñan ñoo la doon sot bari na ñan ak ñan la bari na man de waa waa kër Modou looy nga fa wax. kan waa kër Modou Lo. waaw ñoo ne moom noo yor biteel ko sotti. waaw aw di ko sotti wulli ak promoteur bi saytaan la. Jamaïcain. pire. Euh, maa ngi gërëm Sané. taalibe sëñ Saliou Mbacke boobu nga xam ne dafa bëgg Balla Gaye 2 ba jeex tàkk bëgg Lac de Guiers 2 ba jeex tàkk ak Simo doomu nday Balla Gaye 2 Simo Sané taalibe sëñ Saliou boobu su may wax ci moom du doyal ndax dafa bëgg sëñ Saliou ba pare bëgg Balla Gaye bëgg Lac de Guiers. maa ko gën a bëgg foofu sëñ Saliou bëgg euh, ñoom saa kees xam nga vraiment dafa neex. mais Balla Gaye Balla Gaye lu mu la dimbalee ci combat bi ci côté mystique ak yooyu sama que li ñu ngi yow yow yow yow yow yow yow la ñuy attaqué te yaa yóbbu ardo ah ñun xamuñu fu koy jógee yow fan bi non maa ngi ko si mais yow da daw di jam di daw booy bi nan laa ko doon def tss gauche tss gauche di arrière bëri mag laa bëri moom. ndaanaan ndaanaan nga. pire. ku la fàttali ndaanaan ku ma yab tey nga ma yab bi ma defee accident bi door naa ñetti nit ñu daanu ku ma yab tey nga ma yab. ok ok sama sama avocat bi maître Ndiack Ba. Mhm. nice cool maître Ndiack fine fine maître Ndiack Ba. sama yaay ji Adja Gass kenn moom borom Angleterre. bu nu jógee foofu léegi ñu nopp ñu pose tuuti ci combat ndax sa yaram tàng na. waaw taxaw muy grand contre petit. muy diggante Ama Baldé ak Modou Lo en tant que lutteur noo gisee loolu. Ah, Ama Baldé yàlla ko yàlla may ndam. maa ko wax. yow yaa Ama boo koy écrire maa ko moo tax ci bëggul écrire ak di ko faral ak Modou Lo ak ak ak wulli di ba du maa ko wax Ama yàlla ko yàlla may ndam. mais yow bokkoo ak Ama écurie. waaye lan moo tax may bëri wulli kon Modou Lo di jàppale wulli di ko fara Ama maa ko wax yàlla ko yàlla may ndam nëbbu tuuma dàq tuuma pourquoi bu koy faral mu teewoon ni nëtt fekkee roi bi saaren bi muy wax dëgg ci moom mu nëtt. ah mooy mooy roi nag waaw d'accord mooy roi feneen waaye du roi géej way. ah mooy roi nag. la nekkee roi waaye du roi géej. mooy Guédiawaye daal d'accord d'accord ay doomu Double Less ci xarit la ay Baye Mohamed ak sëñ Salim laa ilaha illa Baye lees bu ndaw ay rakku liiru jaan kookoy Balla Gaye 2 grand champion kenn du moom d'accord bu nu jógee foofu ñu posé foofu tuuti léegi ñuy dox diggante Boy Niang ak Balla Gaye loolu sax xam naa sax du ma la ko faral ak yooyu. wulu ko jar mu bëreeg moom. grand contre petit mais Balla Gaye Balla Gaye tam maa ngi koy nuyu wàllu baasa au passage Balla maa ngi lay siyaar taalibe Serigne Bamba bi sama xarit sama jumeau. sama doomu ndey. amal jàmm Balla Gaye mu jël Boy Niang est-ce que du moom. ban risque. Boy Niang xale la de. Balla eh, moo ko mag nag. fair play moo ko mag. waaye bëriwul. mais différent âge da feeñ. waxuma mag la de bu ma ah, dugal non xam nga la la bul ma dugal di ma tax seen Balla Gaye Balla Gaye sama xarit nga sama doomu nekk sama mbokku taalibe nga man du ma mbër wax eh, waxuma dama ne dax différence âge ah xamoo ne âge yow koo magee un an sax âge la fii âge fi Balla Gaye c'est le petit non pas grand c'est petit c'est moi de grand waaye Balla Gaye non yow moom waxatul sa grand ah. yow xam na ne grand mag nga yaay monument ah, Guédiawaye su ma nekkee gannaaw mag ma xam nga yow da nga mujj ma tànn di xulóog ma tama sama xarit nga yàlla non xam nga liiru yow sama waxtaan yow ma gannaaw nga su gannaaw laa wétu ma ko magu ma la liiru man di xale la ey eh, Fadal yow mii maq xam ne maq nga nga yaa ngi may sosal de sosal lu ma la yaa ngi may tey xam nga de war ngaa rus àdduna di ma gis di ma ah, dégg may ah, xulóog yow xarit lan woon ah da nga koo dindi léegi. déedéet wax soo koy wax. mais da ngay boo soppeeku. non non mais liiru dañuy waxtaan liiru do liiru man nga ci làmb parce que yow nee nga man grand code petit. waaw yaa ubbi yaa ko ubbi. waaw man maa ne xale yi xale yi mag ñi dañuy may xale yi sens. Balla gay su magee booy ñaar magee wu ko dara li mu ko magee bëriwul tey ji Balla Gaye suñ ko fayee lu ko jar mu bëreeg moom suñ ko fayee lu ko jar. la non combat la Balla du yàq làmb. ko fayee ko jar. Balla combat la. suñ ko fayee ko jar mu bëreeg moom laa la laa la day liggéey tu nga fayal ko wax day liggéey. du Modou Lo ngi nii jël Ama Balde. waaw ah. ah moo fay Ama la ko mais Modou Lo Ama prouvé. moom ak Ama Balde. d' accord la lamb la gis nga lamb noonu la loolu mooy neex tey jii Bombardier su ma nanguut a jël mu dem jël Reug Reug. non xam nga lan la foofu nag laay teg sama tànk. liiru liiru liiru lii la yow xëj na da jënd sa juróom-ñaari mètre percal xëj na te bëgg a dem alaxira Bombardier ma yow nga ñu jox la li lu wulli mais mu def la la mu lay def ca Gàmbi la la ma def Fadel yow Fadel xam nga lii ma tax saytaane xam nga non xam nga lii war ko war a bul wax li nit ñi bul wax li di non bul wax li nit ñi di ko dégg waaw kon baal maax damaa juum lu ñu def la dara du fi yam ndax sama doomu ndey nga du fi yam sama xarit nga yàllaa ñu boole waaw boo déggee li mu la def nga ma lan la ma def lan la ma def dalaa gëdd nga arrière arrière bi laay wax la ah loolu laa xamul rek mais bu loolu laa xam ne bu ma defee su doon Dakar la ah, na am na neneen nu may bëre fi mu ne lii dafa maa yellu bëri su ma doon bëri waat ak moom ah, li muy gàm bi moo tax nga arrière déedéet xool la ñëwee ba pare ak ñee ko indi ma leen doon ñaawalaale kan moo ko indi ay Modou Lo ay Papis ñooñu ñoo ko ngem bu indi ko demb xarañ loo waaw ñooñu ñoo ko indi pourquoi mais parce que mais est-ce que ñoom ñëwoon promoteur bi jamaïcain mi tëgg lamb ji parce que jamaïcain jamaïcain xaritu Modou Lo la xam naa loolu booy Modou Lo la suñu xamee Modou Lo jamaïcain pour Modou Lo tax suñu xamee jamaïcain Modou Lo tax mhm. waaye fekkoon tey lamb ji doogu ma leen ni soo wàccee tous ba dem yëgaat ci kaw tribune ba mais daa taxaw di def lan mu taxaw def lan dañoo ñëw taxaw di wax ak wulli di ma bañ ma gis ko mu muy mu papis pour di yónnee papis papis di dem ci wullee ko ñëw Pape ba pare Pape Ousmane maa ko gis mu may ñaawalaale def ay jubilé yooyu booy bi. ah bon si. Papis mooy jubilé naan ah. dañ lay rey tey. Papis warut a def loolu Papis. waroo def loolu nag sincèrement waaw loolu dara xanaa gisoo bi ñu yëkkatee sama loxo ni Modou Lo def. gisuma image boobu. yow yow danoo capturé ko. lii la def. non Modou Lo bett na ma non. Modou Lo bett na ma bett na ma bett na ma yow. yow xam nga sama xarit nga. doo sa xarit ndax yaa ngi commencé sama li nga wax fii tey. sama xarit nga li nga fii tey la xam nga lan la nag. yow ñëpp féetale na ma ak yow. Fadel la dëggee doo su ma woowee daan ma Fadel doomu day liiru jaan. Alioune Seye def na ma Fadel doomu day liiru jaan. ba ci Balla Gaye su ma def na ma Fadel doomu day liiru jaan. yow yàlla na boole. waaw ba pare ni nga doxalee tey. non doxalee ma leen cest à bi mu la gëddee nga arrêté man xam nga ma doon xaar ci liiru. at bi ni fër comme moom mi ngi naan màggatum jaan nga nga indee ko xeex moom ci biir gàdd bi jàpp ko woon ko ni man du ma màggatum jaan mais comme xaar naa ko di nga ko gis bii di ñëw dinaa ko may revanche ah laa loolu laa bëgg nga ñëw di ko gis mhm. ma fay lu ko yàlla na taxaw ak jàmm ko jar ma fay lu waaye xoolal Fadel mais bu ko jamekee bëggaatoon fii nag di nga ko nangu ma ne ma fay ko jar damay jamekee bu do xaritu Modou Lo ko jar loolu dara sama nekku ci su ko neexee Modou Lo sax na ko tëgg nan lu ko jar damay liggéey. ah loolu tax dëgg yàlla leer na Modou Lo bu tëggee sa digganteeg. su ko neexee. ñaareel bi ma la xamal la benn affaire victoire noo ko amee. baax na baax na naar bi yëg solo moom Modou Lo moom moo ko waxoon bi mu bëreeg la dëggee pare. victoire noo ko amee baax na at bi yëg solo waaye sama drapeau bi bu doon xam nga so drapeau xam nga so. waaw waaj xos. waaw waaj euh, xos. njool. njool bi nekk Gambie. daf ñu tegaloon oto ak terrain. Mhm. njool bu beneen ji. Hmm. daf ñu tegal oto ak terrain. ñu ko fekk bari woon na journaliste ku daan am oto ku daanoo am terrain ma ne wulli d'accord nga mun ne d'accord ñëpp ñu am témoin ñu teg ñaar yëpp ku daan yóbbu. waaw mu ne d'accord naa. waaw léegi daan naa. ana terrain bi oto bi daan naa waaw may naa ko terrain bi ci xol bi sedd guy sama oto laa soxla. ah terrain bi kay moomoo ko ku daanu yaa moom terrain. ah yéen ñaar dañu ñaar ñëpp dañoo tegoon terrain bi teg oto bi. ku daan yóbbu ko. yóbbu ko léegi may nga ko terrain bi. may bi terrain fan la. Gambie yow looy dee terrain Gambie. waay baax na dafa neex de. yaa nga fa gërëm waa Gambie gépp di gërëm te dégg naa da dem ba Gambie dëgg naa da dem ba Gambie am ñu lël la fa nag jël ay maara lël la fa. non non pas loolu Gambie waa Gambie. waaw man nar a ñëw de. mbaa doo fa am seet. non mbaa amoo fa seet. am ay fan laa fa am ñi bëgg Balla Gaye 2 yëpp moo bëgg Gambie. waaw Balla Gaye Gambie am na fa doole macha allah. ñëpp moo bëgg Pape Ndiaye suma xarit la maa koy këram di ko sant ak Pablo doomu nday Siraaju Diallo ñooñu ñoo nga nekk ca ca Italie Pablo alam ndaa suma doomu nday doomu nday Asmalik Mm-hmm. ñoom ñoo ngi nekk Espagne. Mm-hmm. asubu Balla Gaye 2. Mm-hmm. asubu Balla Gaye 2 nekk France. ñu gis ñu gis Alioune Seye 2 seen sonn ci combat bi. non kooku suma rakk la c'est dafa am combat dafa am bis. maa ngi ñaan yàlla yàlla may ko ndam lu sedd guy ndax bisam sama bis la ndax sama rakk la c'est mon frère Alioune Seye mais mbaa mbaa xam nga ne Guédiawaye yaay monument bi yaay monument bi. waaw ah, yow xam nga loolu gars yi wane nañ ko. Balla mooy dama may ndeysaan ku ne woo ma ñoom la dëggeer ah mm, mm, vraiment mm. ah booy Marley ñoom Pape Thiam xale yi ñoom ñëpp woo ma di ma conseil daal vraiment wanal ne drapeau bi nga yóbbu te ñoom suñu xamoon nii lay demee boo yëpp maam mu ñëw Gambie de man maa leen wax toog leen Gambie dafa sori du Sénégal suñu xamoon nii nii la combat bi demee nii ñoom ñëppay ñëw xisal la Pablo Pablo san ndeysaan dafa ne ma fan yi mi may woo démb naan ma liiru ah ruus ma ci waa ji li mu def affaire yooyu ndax yow sama waay nga. waajan ma ci pa euh, moom Pablo xam nga moom Modou Lo ay gaañ la. sama xarit la moom euh, Pablo fee la nekk Italie. Mhm. li Modou loo def dafa ne ma. ndax dafa gis sama benn interview mu naan ma woo ma naan ma rus ma ci ma ne ko moo li mu def du dëgg du yoon Pape waaye naa la ci rus rus naa ko ci nag waaye Modou Lo li mu def du dëgg du yoon. lu mu def. ah faral wulli bi mu def nii taxaw wone wu ko nëbbu ko ba gars yi ñëpp de ko fàññ caméra yi. xam nga journaliste xam nga saaru buur géwél nga xam ne ay saytaan la buur bu Dakar ak te moom yooyu rek lay yàkkamtu moom bu ko def defoo rek ba mu gis ko yooyu rek lay yàkkamtu bàyyi dara mu sedd buur géwél xam naa buur sama doomu ndey sama xarit la de bàyyi li ngay def bàyyi yow yow wul pay saytaane yi liiru maître sama avocat bi ci kaw ci kanam yow mbaa mbaa du ma la wan ginnaaw nga lay fadal saytaane nga yaa ngi koy te ñu ngi wax ñëpp samay xarit la yaa ngi jëm ci yoonu nekk saytaane waaye no non non non non non non da ngaa bëgg sëñ Modou Seye borom tawféex sama xarit la moo tax ma bëgg la sama xarit la waaye ni ngay doxale sëñ Modou Seye tawféex da nga koo bëgg waaw sama xarit la ko bëgg ma bëgg la waaw kon bu ma xas kon bu ma ne saytaane nga ak sëñ Modou Faye bu jàmm ga sëñ Samba Ndour ca Touba sama sëriñ sëñ Cissé bu sëñ Babacar waaw falaay ziar sama sëriñ la ak gas sama sëñ Xaadim Kan ca Espagne ak ay xaritam ay soppeem taalibe mi nekk fii ñëpp maa leen di gërëm di leen sant déglu ma léegi ma ñëw ci beneen affaire mooy masi la waaw ne woon dan lay daan loolu la waxoon neewoon na dalay daan de. moom loolu la waxoon ne wuli daf may daan moom la faral wuli la waxoon te fii nag. attention ma juumul ma la moo nekk sëriñu Modou Lo. mooy sëriñu Modou Lo bi déglu li mu la wax ñëpp noonu affaire demee waaye ma xamal la benn affaire na lu ma xam lu bëree bëri bëri bëri. mais ma la fan la teg ni lay daan. Ah, de xam xëy na moo ko xam. dan la xeeb la danoo jàpp ne ñoom mystiquement ñoo la gën a pare. xaj na ñoo xam ci affaire musique lañ doon xaj na tamit dañoo jàpp ci combat bu baax la. dan lay daan jàpp ci combat bu baax waaye man yàlla ak yonent bi laa àndal ak sama ñaari waajur ak Serigne Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall. waaw taalibe nga nag. et puis borom xol bu rafet nga. àdduna amul solo fii loo fi gis dafay jeex ñun nit ñi dañoo bëgg dañuy bëggee. mais ma mais mais mais ma si la mais ma mais ma si la warta wax loolu nag. waaw loolu la wax. nee na warul wax loolu warul wax loolu. bi ko defee interview bi ci guddi lan ma ko mhm. loolu de. ah bu waxee loolu tam warta wax loolu. Ah, gis nga làmb ji ni kon nag looy tàggatoo li ma xam bari na de. lan nga xam li ma bëgg li nga xam nga wax ko li nga xam laa bëgg a xam am ñu lan la man ak yow samedi ak dimanche la amul loo may ne dama bëgg li nga xam nga wax ko Fadel mu dégg. Fadel lan nga xam. Fadel waaw. wala da ngaa commencé ragal léegi man xamee ma la ragal de man aw ma tiitukaay faddal man aw ma xamee ma la ragal man ma xamal la benn affaire faddal man damay sant yàlla ak bi sant baax a baax a baax a baax soo ànd ay nit ñàkk seen bakkan loo am jëlal waaw sogo waa sogo waalo ba di gërëm père di ñaanal père Alioune Seye yàlla ko yàlla ba góor a Seck hmm. Cheikh Mbeng Cheikh Seye ak hmm. mama ba ba yàlla na yàlla xaaral àjjana ma nga ma yëpp waaye sant yàlla bu baax ndax mais liiru di nga toog ba sàgg soog boobu ñëw sa bopp léegi-léeg ndax damay xalaat dama koy dama dama koy janeer waaye Thierno Lo kenn du moom yàlla ko yàlla defal jàmm li mu moo xam yàlla ko de Thierno Lo xamuñ ko tam ne ko ministre ci nguur Abdoulaye Wade ko doon wax yow xam naa Thierno Lo Chirane da ko doon wax Chirane ak rakam loolu dëgg la xam nga lu ma bëgg a xam wuli li nga xam hmm. loolu dinañ ci dikk ci ñu ngay gërëm ñu ngay sant li nga xam bari na lan nga xam xam suma du ma ko wax léegi ndax dafa ne maa dégg may ma non man dama man man maa bëgg nga wax ak man maa ngi def sorti ñoo ngi dégg nan ma tontu maa ngi déglu man maa bëgg wax nga xam non non Fadel may ma tuuti rek li ma xam dafa bari kon yow yaa ngi commencé ragal non non man du ma ragal man gaynde laa du ma ragal yow en tant que mooy ah, maa non sot bi moo ma métti Fadel yaa ngi commencé ragal nag sot bi moo ma métti ñoom ñu def grand fala nga gis yow nga war wax waxoo looy ragal non li ma ñoom ñu def grand fala Modou Lo Ama Baldé daan yow nee nga Papis pap nee nga Modou Lo moo jox Papis biteel pour mu sotti ko ko kon ñoom nëbbatuwul bul nëbbatu booy nëbbatuwuma de looy ragal nee naa leen promoteur saytaane am na jamaïcain saytaane am na mbëru saytaane am na kan mooy promoteur seytaane benn. jamaïcain am na ñeneen tamit ñu nekk si ginnaaw. kan mooy mbëru seytaane. xam nga ko xaw ma ko waxal ma dégg. mu tudd ah, de. yaa ah, ngi di faral ñuy yaa ngi ragal de ñuy faral wulli. de taali wala mu dàmm a nga promoteur seytaane mooy. waaw jamaïcain mbëru seytaane mooy kan. ñi ànd ak wulli. ñi ànd ah, nekk réel ñeme. yow kay yow promoteur seytaane jamaïcain la. waaw ma ko kan la. xam nga bari naan dafa dëkk bari na kan la bay fële bari na coow ah, am na la fi kon jeex na saytaane bi kan la euh, Lamine euh, buur géwël ak kii nu mu tudd keneen ka lu gàtt li lu gàtt li rek Babacar moom saytaane la <laughs> Babacar maa ngi lay nuyu waale saytaane <laughs> doo ci njàmbaas Fadel yaa ngi ci kon daal li may sotee laa xamul lan la lu ma leen def. mais ba eh, mais eh, eh, promoteur Babacar defu la dara. Lamine def la dara Babacar ñooñu journaliste yi mbër yi ma doon sot laa lu may sotee. mbër yi kenn dong la. ñoom la gis naa leen Papa Sow bokku ci kooku bokk ku baax la fële la taxawee pourquoi jox booy bi biteel pour mu sotti ma ko. kan. Euh, Modou Lo mu koy jox ok. Euh, papis papis pour papis euh, jox ko wulli mais yow bi ngay def est-ce que Balla Gaye jox la butéel yow tam sama rakk la mais bu ko neexee ne sama rakk la man tam sequñu dara eh, yaa sequñu dara eh, mën na nekk xaritam sequñu dara daa xamul wulli rek ba pare ko faral ba pare liiru dama ko su xamoon wulli ko faral laaj ci biir su ko faral bilaay daa xamul wulli bilaay daa xamul la ca biir liiru dama ko laaj mu ne ma Aziz Ndiaye sax man faral parce que Aziz Ndiaye nee na mu ma Aziz Ndiaye nee na ma mm. wulli bi mu liiru jaan bi mu ñëwee kër ak sama kër lekk ko fa indi woon. kan ma wax loolu. wulli sama xarit as fii la dëkk Géejawaay bëgg Géejawaay. nee na ma lekk moo la indi woon kër Asi Ndiaye. Asi Ndiaye. ma ne ko liiru ñoo nekk doon foofu mu ne ma lekk ko fa indi. yow su ma fa lekk indee xam nga. waaw ma ne ko loolu moom liiru lekk ko indi. Asi Ndiaye sama doomu ndey la sama xarit la ma sant Ndiaye ma sant Ndiaye. Baala Gueye kii mais dafa mel ni combat bi dafa mel ni combat bi nag téye nga ci de ndax ñi nga. Ah, téye nga ci nag non non yow combat bu yàgg bi combat bi fi mu ne gars yi laay xaar monsieur le maire laay xaar mu ñëw ah, ah, at kee ñoom nee na taal ak ñoom ah ñoom Fuuta ak ñoom Boy Deeg yooyu àndaw sama jarbaat bi. looy tàggatoo. maa ngi gërëm diaspora bi ñëpp ma kenn sëñ Modou Seye borom tawfeex maa koy gërëm Pablo Pablo maa ngi koy gërëm doomu nday si rajo nekk ca itali Pape Pape Niass sama xarit la. Euh, nu mu tudd minna Minnatou dëkk golf maa ngi koy gërëm Minnatou xam na boppam su ma nee Minnatou euh, maître Ndiago sama avocat bi aw ma lu ma ko fayee. jéy seen sama doomu ndey sama xarit di gërëm ay jabaram ku ci mel ni Kumba Saari at sëy na bu at say at at sama sama jarbaat bi ñoom ñëpp maa leen gërëm di leen sant bàyyiwuma kenn euh, di gërëm waa géej way bi euh, euh, ñi ñi jàpp ñuy jaay yu yu périmé yi nu mu tuddati service d'hygiène yi nekk roi bu dee ñoom ñëpp maa leen gërëm waa service d'hygiène yi yi nekk roi bu dee ñoo baax ndax samay xar seen liggéey dafa rafet ñoo nekk roi Baudouin. dafa mel ni yow askan wi la bëgg. gërëm euh, notaire waa notaire sama boy yi ci fast food bi waa notaire ak gunaas ma kenn maa ngi gërëm ñëpp sama yaay ji Adja Gaas borom Angleterre maa ngi koy gërëm ak ay xaritam ay rakkam rakkam yi nekk fële nu mu tudd euh, dëkk ba euh, dëkk ba nekk ginnaaw côté États-Unis fa ñuy jàngi Canada ak rakkam ji nekk fii nu mu tudd Gambie ki ma doon toggal ceeb bi neex yi di gërëm sama ñaari boy yi. Euh, mbay di foncé ak Tafa sama ñaar rakk la. Mhm, Cheikh Saw nag sama xarit la sama rakk la dëkk Géejawaay bu téewoon mafia bi Cheikh Saw. mafia bi ba may dem ba may war a dem lan ba ne suba la daf ma woo këram. Mhm. jox ma ndékki def na ma ndékki lu mhm. jox ma xaalis na ma demal grand frère nga daan. Cheikh maa ngi koy gërëm di ko sant maa ngi gërëm waa Géejawaay gépp bàyyi ma kër képp kuy autorité woon te àndoon ak liiru jaan maa ngi gërëm da ko ànd ak man nag sa affaire la yaa xam waaw maa ko wax. autorité yu àndoon ak man te nañu la bëgg dara géejawaay seen affaire la ñoo xam. mais baadul la mere am dara baadul la mere. ah dama lijjanti man ku ànd ak man yaa xam lijjantiwu ma leen man Aliou Sall Sall ngaari budu yaa ngi wayaan nag. yow bàyyil dóor yi nag tax ma tey taw. dóor yi da cee bari dama lay wax. dama ah. man man la àndaloon dafa ne man naa jàppale man la àndaloon. gisaguma ko waaye nag man ndax wax na ko mu rafet ne man la àndal loolu kay neex na. su la joxul dara sax neex na. mais yaa ngi Cheikh Ahmadou Bamba. billaahi wallaahi wa taala ko waaye lim ne mën naa àndal dafa neex. mais yaa waaye am na ñoo xam ñoo làqu te ànd ñoo seen bopp si suuf la ñuy wax duñ kaw ndax man sama làmmiñ maa ko moom. mais yaa ngi xaar may dama nga yaa ngi koy may bëgg nga koo may revanche même bu ko neexee Modou Lo na ko tëgg. su ko neexee na ko tëgg moom Modou Lo moom mi ko doon faral su ko neexee na ko tëgg Ah, li nga jàpp dëgër na de. non non non non euh, mu def dafa ma metti dafa ma metti de Fadel toujours dafa ma metti. Hmm, dafa la metti ndax warul warul yow nga ne tànkar yaay roi des arènes Gris Bordeaux sax miin na li mu waxoon nee ndekete yow gars yi dañ na woon dañ ma koy jaxasee moom ndax Gris gars yi dañ na woon Gris dafa ne Modou Lo la faral waaye Gris nee na loolu amul dégg naa interview bi ci pël Gris nee na loolu amul man waxuma ko ndax man su ma liiru jaan laay bëggee. te xamoo Gris ma rek moom dañoo nuroo ay nuroo waar. ay gaañ ngeen sax amul benn problème Gris Bordeaux ah. démb sànni woon naa la xeer waaye amul problème jéggal ma yow sama gaañ nga ndax nan nit doo ngaa ko yow. ok Gris ah nice ñu si des nag ay saytaana lan. léegi sargal liiru jaan bi Balla Gaye di def. waaw kañ la. waa léegi après Balla Gaye mooy jàpp bis bi daf may sargal. parce nag ndam li nga am yaayoo nga sargal nag. ah ndam li nga am yaayoo ko sargal nag. na yoo xam soo koy wax du yow. nga yaay ko sargal daf lay waaw parce que man li ma jaaxal mooy. waaw yaa ngi arrière mais yaa ngi dugal gauche bi. dafa mel ne mais nag combat bi dañuy travail ma fu ma nag gis ma Aliou Seye ni mu sonnee ci combat bi combat bi yàlla ko yàlla mooy ndam ndam mu sët guy mu ñëw xool booy bi booy bi daanu jaaxaan. ma tëb ma kontaan. reprendre entraînement yi te xam ne li lay xaar moo gën a metti parce que booy bi moom nee fii ba vingtième combat saa si sifflé sa kaw. waaw moo lépp doole moo la gën a nekk xale. te dalay agressé. waaw loolu nga yàgg. kii laaj waxuma waaw vraiment. kii laaj Bombardier faalewu ma ko. non Bombardier boo ko laajee tam laa mujj. yow Fane yow dimbali kii laaj Bombardier faalewu ma bi maa la wax. Eh, yaa ngi tàngoo sama grand bi man mii laaj Bombardier faalewu ma ko. man parce que Serigne Bamba faale maa doon maa yow. waaw dama lay seytaane mbaa eh, nga. sama gaañ ah. <laughs> waaye eh. war ngaa gërëm Aliou Seye 2 de Aliou Seye 2 ku sonn ci ah. yi yëpp. ah ñu bokk si groupe whatsapp maa leen gërëm leen sant groupe whatsapp ba ma bokk rek ña ca nekk ñëpp maa leen gërëm gis naa nuyoo yi gis naa gërëm yi gis naa ñaan yi gërëm naa leen yéen ñëpp képp euh, sëñ Mandiou Seye borom taw féex ci kaw ci kanam sa doomu nday Fadel. nee ko nag na ma na ma na ma na ma woo. di nga ko gis nee la woo. wax ko ko mi ngi lay seetaan. sëñ Mandiou Seye borom taw féex. Euh, sama sëriñ sama xarit war Fadel. waaw sëñ Samba Dour sama xarit la. gasama ay sëñ Modou Faye ñoom ñëpp de bu sëñ ñoom ñëpp ñi nga woo ñëpp de bu ko indee ku ku ne cinq sax da nga moom xam naa ne combat bi moom biñ ci jógee am nga ci bari macha yaa ngi dóor combat ban ko jàppee ngay dóor ñu ah, bëri ngay dóor après combat ngay dóor combat xam naa maître ah. Ndiak li def rëy la de ah. barki sëriñ mais yow mais nga woo dina ñëw. day ñëw. yow ñi nga woo ñëpp bun dikkee mën ngaa bàyyi laam te dina ñëw. ñi nga ñi nga woo ñëpp buñ dikkee mën ngaa bàyyi laam. dañuy ñëw de ñëppay ñëw. jëy seen sama doomu ndey maa ngi gërëm di gërëm jabaram ndax wax dëgg yàlla dama doon toogal kumba sëy na bu at ñëpp maa ngi leen gërëm di gërëm géejaway gépp képp kuy autorité nekk géejaway ku faraloon liiru jànn ku faraloon liiru jànn ak waaw waaw waaw loolu wax wulli ci revanche bi dama koy may revanche pare naa pare nga ndax laa miñ bi daf rëy te booy bi damaa xam sar xam la mooy saraxam. xar bu dër. xar bu dër. waaw. liiru yow da ngay waaw da ngay yow da ngay éleveur wala lan la dangay ngay pël wala doo xamee xar bu dër. xar bu dër mooy la xar bu ah, xaw ma ko xam ma dama xam wax ak xar. ñaata mbee moo am. mbee. ak ban. ak ban. moom ban la ciy def. boobu ban mooy saraxam. boobu mooy noo xamee sarax yooyu yow noo xamee. noo xam noo gëstoo ba xam ne lii mooy saraxam. Euh, seere bi dafa xoosu ba pare sama maanaam bi nee na ma xar bu dër mooy saraxam avant may am xar bu dër son naa fu ne dem naa maa ngi ko amee daara jolof la amee xar bu dër xam nga xar bu dër déggoo ñu ne tabaski su jotee xar bala nga koo jënd na mbee mbee boobu xar baax boobu dërul loolu mbote la de non mbete la mboote waaw ah, kay waaw li nga mais li nga di wax sànq mbete la mbee lu ne day am day am problème xar boobu dëtt mooy saraxam jërëjëf am internet Dakar Buzz di gërëm sama doomu ndey Modou Mbacke mu defal ma ay tranga mhm. man daal victoire noo ko amee baax na Alioune. ar mooy sax àjjuma nga sol benn. sama rek sama xar yaa ma na naar bi yëkk sa loxo Modou Lo moo ko fi waxoon. Mhm. bi mu bëri la victoire noo ko amee baax na. at bi yëkkat sama loxo ma ñëw ñu may defal ay trang ñu may woo di ma teral rek. Mm. xoolal ma lii Modou Mbacké def baax yaay ko tiir sama doomu nday sama xarit daf maa bëggal boppam chaque àjjuma ma sol benn. lii lépp dala ko teralee. kii def lii rek ci gën a ma sol nii moo ko ñaw. ah bon mais lii sa combat bi kon tubarkalla macha allah. <laughs> <laughs> laa ilaaha illallaah borom waay xos sa victoire bii de tubaarkàlla macha allah lu lu ne am nga ko ci. non catuma la mais xam nga li damaa xam ne daa daa daan wulee ah. ñu teree la teraanga ju toll nii fukki mbubb ak garam mbubb ak ak ak ak oto. man nitu nit ñi laa. loolu yàllaa ko def yéene bi ko def. man soxoruma yéenuma kenn lu bon. Mhm. barke Serigne Saliou Mbacké su ma soo ñëpp avancé. dox ca kanam. yow sama xarit sama xarit nga yàlla nu boole. yow Fadel da ngaa baax. waaw waaye léeg-léeg nga soppeeku. déedéet soppeeku ma dañuy waxtaan dañuy waxtaan sama xarit nga. yàlla nu boole sama xarit nga. Ah. ñëpp ma ak yow. la daje dee nee na yow laa féeteel. guy gi nee na laa féeteel. Balla Gaye dee nee na yow laa féeteel. wax baaxul daa pare woon. yow combat bi gars yi fi ñu ko moo gënaaw. ah. waaw non man moom ñi ma ci woon a parier parce que moom moom waaw moo ci parier. waaw bii ñooy gën a gën a revanche bii hmm. nan ma fay xaalis bu ko jar rek. ñu bëgg revanche nan ma fay xaalis bu ko jar. ñu ñëpp bëgg wax nan ma fay lu ko jar rek. ndax sama ngemu gii. ak pooj ba ma pooj Gambia. bi ma denc gën a gënaaw. Alioune Seye la ma def. Gambia waaw mais waaw ah, mais tous. waaw mais tous ma nag. waaw Alioune Seye sunu yaay ji doon togg añ ya eh, maman ko Kole borom añu neex yi rakku yaay añaa gaas sànq rek mi lay laajte ndeysaan borom ginaar benn del bu ne def na xam nga nag gis nga so waaw oh, safóor mooy cee cee gis nga soo baaxee am yaay ju foo dem am yaay wàcceel sa kàddu foofu. waa dem amuñu ay fadel la waaw d' accord léegi wàcceel sa kàddu foofu. waaye sama nga ko jigéen la fi jógee. waaw am internet Dakar Buzz lii bokk na ci li leen jël si loon fii tey ci waay ma jël si suma xarit suma mag liiru jaan moom nag. sama mag sama xarit. waaw ah, kon waa toogal waa toogal. waa toogal damaa juum ko toogal. waa toogal Lirou Diane kon. Lirou Diane kon Lirou Diane sama xarit. sama doomu ndey ndax moom nga bëgg sëñ Modou Sow taw feex ma bëgg lim na ndax ay nit nee na ay am nañu seytaane mais dama bokkuma ci nag waaye léeg-léeg ci biir wax ci ma seytaane nga noonu ni ngay comporter xam nga mais damay comprendre ndax moom lu bëggul ko wax dëgg soo waxee dëgg mu ne seytaane nga xam nga di gërëm nag eh, eh, Aliou di nuyu Aliou di Aliou Seye di déglu déglu di nuyu Aliou Seye de sama baay faal bi sama xarit bi maa ngi lay bëggee di wax nga am jàmm waroon naa def yow benn interview mais après ni muy demee expliqué woon naa la yaa ngi ci combat dañuy wax que le maire gagne sañ ñoo laa faral mais Baye Fall nga gentleman nga di ñaanal sa adversaire wér ak jàmm yow tam di tax ci suñu kàddu rek Kouthia maa ngi di ko sant bu TFM waaw Kouthia kooku moom moom diggu la moom ñëw na ah kooku moom ñëw na Kouthia non sama xarit lu mais ñëw na Kouthia du question joxe ah. Kouthia sama waay la du tey boole ma ak moom moom xam na man xam naa te combat bi jàpp na ci da boole na ma ak ay gaañu ñaanal ma jërëjëf kon foofu laa wàccee sama kàddu lii la gërëm ñëpp képp kuy yeewoo Guédiawaye maa gërëm sant képp kuy autorité te te jéngoo ku jéng nag xaw ma ci yow dara ku siisu nag ku siisu yaa xam am leen jàmm amee internet Dakar Buzz li ñu leen koy toppee la euh, émission bi mag bi nga émission borom teranga yi borom teranga yi waaw am internet Dakar ba di leen leen indi boo ko def ci li nga muy seen émission samp ndënd samp ndënd tey ma seet si woon un grand champion muy Lirou jaan di nit ku baax di champion bëre woon ca gàb bi digganteem ak wulli yàlla may ko ci ndam nii la leen koy toppalee dinañ seeti nag wulli moom it xam réaction am am leen jàmm di leen bëgg leen ñëpp am leen jàmm jërëjëf